objectif objectif bi gagner les élections avec 63 avec premier tour camarades étudiants objectif B loolu mais plus précisément également gagner la région de Dakar fi ngeen dëkkee Gueule Medina, Fan, Medina, Fass loolu bu fa ministre bi perte bu fa président perte autant pour moi dañuy gis ne kat liggéey bi nga xamante ni moom la ñu waroon doxal doxaluñ ko te ñun étudiants dañu ameel njukkal le président Macky Sall. danoo ameel njukkal le président Macky Sall si parce que li mësul am le président Macky Sall moo ñu ko defal tey jii nii bu ñu déggee ñu naan yokku nañ bourse yi président Macky Sall la étudiant tey si bu ba boo un fukki am pain un petit fromage am ci café am ci mew, am ci sucre am ci tang, c'est le président Macky dama ni buñu démé ba francs ñu am ci saf sap, ñu ñu ci ay c'est le président Macky mais dama ni avant le président di xamnañ li newoon université Ben chambre dañ doon gis 10 étudiants nek ci légui pavillon yu bési président lancé un projet un étudiant un lit donc lolu mu nek lo xamanteni président defal nañu ko kon li nga xamanteni mo nu war ñu fay ko bor bi.